Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale internationale. yu bàyyi ko ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Saliou ak mboolem ay rakkam waaye di ko jaarale ci xalifatul am taifatu murina Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg te di nuyu baax sëñ Cheikh Jëmb Fall ndax Cheikh Fall jaru sëñ Tuubaa mooma maa ngi ñëw fii tey Touba Pambal ngir jëm fee wuutu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou ci bisub Serigne Saliou bii waaye nag bis boo xam ne dama cee bokk ndax Pambal day suñu gox ànd ak Serigne Khadim Gueye moom Serigne Saliou Touba sañ piir Serigne Basirou sëriñ bi fan yëpp mu ngi poroxaan màggal ba tey mu ngi poroxaan tey ci tàkkusaan la may woon ne ma egsi naa Touba kon da ngeen seere ne. boo ko fàttalee la ma xamal ne ma noo maa def lu ma xàqa na nga dem Touba Pambal ndax guney Serigne Saliou yooyu kat bëgg naa ñoom te am naa yéen a gisante ak ñoom Serigne seex nee na waxtu wooyu féexi na ngeen jàpp bis ñëw ca moom nu gisante yéen ndax seen taxawaay leer naa ko te mu bëgg mooy nam gum ne tam ngi bëgg lay teg bët comme waaj jàpp bis fekk ko ngir mottali ko la seen digg Serigne Saliou moom maa ngi nuyu baax Serigne Mokhtar Jonn jëwriñ Serigne Touba yàlla na suñu borom taxaw ko dëgëral ko ak rakkam Serigne ak Jonn suñu boroom yiir leen ba seen taxawaay bépp mu gën a lëng ñoo ngi nuyu imaamu dëkk bi sëriñ Ibrahima Jonn ak sëriñ Mbay Jonn jëwriñ maa ngi nuyu baax sëriñ Ngañ Tin wëllëre di taalibe sëriñ Saalu ak sëriñ Lamin Jonn sama wëllëre ak sa Majaañ Njaay ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk ak sëñ Umar Jonn bu yindaan bala ba sori nag maa ngi bari ak cant sëriñ moodu Dia Touba Mewane moom Serigne Cheikh Dia moom Serigne Modou Dia moom Serigne Modou Njar jàmbaar ga Serigne jër jëf yow li nga waxtaan Serigne Saliou doy na sëkk ak maam Charafa yàlla na suñu borom taxaw la li nga leeral sa diggante Serigne Saliou gaawu la ak dibiir ku Serigne Saliou bëggoon a ngi nii ku Serigne Saliou fonkoon a ngi nii bis ba mu jéggi sa Serigne Saliou sama dama ko teewe waaye su ko Serigne bi joxee loxo ñetti yoon day xëccaat loxo bi joxaat ko loxo ba mu ñetti yoon. ak boole ko mooñ goo xam ni moom sëriñ bi da ko bëggal boppam tawfeex googu amoon sëriñ Saliou ni mu ko waxee noonu la demee kon sëñ mujja boo taxawee ci biir sëriñ Saliou bi def nga la war ndax sa sëriñ ba sa maam ja dafa am fu mu la tegoon yàlla suñu borom taxaw defal tawfeex maa ngi nuyu baax sëriñ naar jenn moom di kilifa di am wàcc waa wëree ci tund wi sëñ naar ñoo la ziare ñaan suñu taxaw la sa maam Cheikh Issa Dieng diggante mi sëriñ Saliou lu yéeme la ca njaareem la fa xew ni waxta leera ci ab jotaay ba tax na wëllëroo ci la deewoon ba mboolem xel koom waa kër sër Cheikh Issa Diène ñoo koy góob ngir wëllëroo woo xam ne ndax sa Issa Diène newoon na ko ci njaareem Sëriñ Tuubaa na yow Sëriñ Sall waroon naa la ma day yow naa la ab junni loolu moo law ci sëñ Mbàkke Jenn sëñ Naar genn ak njaboot Sëriñ Tuubaa gépp yàlla yàgg te sax maa ngi nuyu baax sëñ bii Fall boroom sëñ Adama Fall mu Sadikh moo sëtub sëñ saalu Fall ñoo ngi ko nuyu baax bu daal xëfóor diggante wëllëre mag Cheikh Blaat ak sos bis bi nam demee yëpp li saa su nekk du sëñ Basiru jóg dama ko leeral si aadama ñu ñaan suñu borom taxaw la defal feex di nuyu baax nag euh, sëriñ Moustapha bu suñu bàyyi bàyyi ko sànq ak say blaat miit ñëpp nag maa ngi ndax bu ma toppee nuyoo mën naa gën a sori waaye sëñ Basiru dafa am lu sëriñ la waxoon bi muy dem Barsak daa waxoon ne du ma dem mukk ba leen su ma leen jiitoo dox di leen gestu su ma demee ba séenatuma leen ma taxaw nëgg leen su ma leen nëggee ne gisuma leen ma dëpp dox dajeeg yéen su ma fekkee ngeen dem ma jiitale waaye du ma tàggoog yéen yéen waa Pamba tàggu leen Serigne ndax lii ma wane kóllëre lii ma wane mbégte ndax ni ko suñ mbàkk jone leere sànq liggéey Serigne Saliou bi mu bàyyi ginnaaw waa Touba Pamba ñooy ci man juróom benn fukk saako cere du caaxaan te xel koom jéemu jëm juróom-ñaari junni dong ak juróomu téeméer ñoo fi nekk fii ma wax ak yow ñaar fukki saako cere baraay la ñuy reere pour bis amu jëlal fanweeri saako ceeb une tonne cinq cent la ñuy añee pour bis amu jëlal te dara gouvernement demu ci loolu ku dul Sëriñ Tuubaa mën na loolu kon yéen waa Pambal taxawaay bi ngeen taxaw Sëriñ Cheikh taxaw ko Sëriñ Saliou na ngeen seere ne seen diggante Sëriñ Saliou loolu war la loolu nag day mbir moo xam ne suñu borom ci boppam moo na ma dimbali doomu aadama yi bind Seydina Mohamed Seydina Mohamed wut wasila wut wut jëriñ joo xam ne mooy sëriñ tubaa moo tax sëriñ tubaa daan ni raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimahu abdullahi man sëriñ tubaa doon gi ma doon jëriñ yonente bi ñu sama coobara yàlla ak yonente bi ñoo soob ngir ma nekk xadim rasul sëriñ tubaa bi mu doonee xadim rasul nag nekk mbàkk kajoor jàngale ak yar ci daaree baayam a bàyyam ñibbu àjjana ndeyam ñibbu àjjana suñu borom yéen wasi naa xamante ni ko boo demee ne sëriñ tubaa la bëgg mooy rama jaam ñëpp yóbbul àjjana bu dee daa daa yem ci njàngum kese rek ba léegi li mu bëgg du nekk na tàggat doomu aadama ci fag ngërëmu yàlla moo tax suñu borom yonent bi ni ko sa borom nee na rabbi asxaabaka bihimma wala tarabbi bi tasfahat sa borom nee na nga yas ci fag ngërëmu yàlla te bañ a yem bañ a ci njàngum kese ndax boo yem njàngum si ba léegi li nga bëgg du ma nekk mu yóbbu ñëpp àjjana suñ tubaa daan ne waaw loolu su ma ko defee man yow yàlla yow yonent bi naka lay mën a waxee sama bopp ni may sëriñ tubaa maay nangam suñu borom ne ko naa la boole ku ñuy wax maam Cheikh Ibrahima Fall mu feeñee la ba ñëpp xam ne yaa jantu njolloor bi daal bi bind daal ni amari digal na ma rabbi sans borom an usaan ngir ma leeral bi ana naka man ahmadu bamba ma laa suñ wéere waay laa wa ma soon mucc koy la fa man arde képp ku nam aw yiw fi kiit daar ngi la ñaale kër fayus bu kay jëbb ci man suñ tubaa danne yàlla nee na ma naa leeral ni man ahmadu bamba mucc kaay laa wéere waay laa képp ku bëgg a texe fii ak fañ jëm nañu jëbb ci man loolu moo tax suñu Tuubaa woote wootam bëri ba waaye loolu daa am ay sart sart mooy Tuubaa li habdi mun sadin lohum moo bi himata aw hin aw haddiyaat texe ñeneen bépp jil boo xam ne day jaamu yàlla di liggéey suñu Tuubaa di joxe addiya moo tax booy bëggee sëriñ bi di ko liggéeyal boo ko joxe addiya ndax a dafa am solo ndax day tax a gudd fan day tax a raw sax maas day tax a bari alal day tax sa bàmmeel day leer bu ëllëgee day sax ta sax ci yàlla lekk bàmmeel du lekk sa yaram ëllëg boo jig sara demee danee ni melax bi suñ Tuubaa nekkee woote wootam bu rëy bi ba sëñ Moustapha sañ Abdoulaat sëñ Fallu ñëpp ñëw ba sëñ Saaw toog daal ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom suñu Tuubaa dafa ca mag ja sëriñ Saliou daal ne ko yeewoon ma ma it ma barkeeloo ko ndaw ñëpp lii rutu ñi xel koom ñi ndookaa gi ma ne woon ñi jàpp nal waaye mu def lu gën a yéeme moom sëriñ Saliou jël baatinam sëmbaxte ko ci àdduna bi nga xam ne ki nekk Pambal Ndakaaru Tambaay Espagne ñëpp sëriñ Saliou Mbàkke moo defar yii ndaw seen baax seen taaro bi seen defaru ak xasida ak nangoo liggéey suñu tubaab loolu kenn ku du Serigne Saliou kon nag yéen bu ngeen ñeeku waatee di sant Serigne Saliou di ko delloo njukkal yéen yéen a gore yéen a baax waaye Serigne Saliou Mbacke nee na liggéey bii ma Serigne Touba di liggéeyal képp xam ne ànd ko ko man soo liggéey dinaa fexe ba Serigne Touba toog ma toog seeral dugg na te nag Serigne Saliou du coomo de daane wax naa mboolem ngërëma doomu Serigne Touba yëpp mu ngi ci man man Saliou dajal naa ngërëm yëpp ba ku ma gërëm am ngërëma yàlla ku ñuy wax Samba Faye daara lagal lii fa fa la xewoon dafa ñëw sëriñ saa ne ko Mbàkke man dund naa juróom-ñeent fukki at lu bon def naa ko ci àdduna ba mu des te jàpp naa su ma sawar laa jëm ma bëgg naa Mbàkke xool naa àdduna bépp yow dong laa jàpp ne yaa mat ab sëriñ waaye nag bu ne fañ jëm mënul fa dara teel ma ko wax ma seet feneen barke lii maa ko fekkee sëriñ ko sàmba loo xam mu ko Mbàkke dund naa juróom-ñeent fukki at te lu bon lu nekk def naa ko ba mu des rey nit te jàpp naa ne su ma dee sawar laa jëm xool naa àdduna bépp nag yow laa jàpp yaa mat ab sëriñ ma bëggee a tuub jébul toog nga ëllëg yàlla jégal ma waaye nag dafa am ay sart su la wóoree ni fañ jëm mënuloo fa dara teel ma ko ma seet feneen sëriñ Saliou sëggi xool asamaan si sëggaat ñàkk jox képp lu ko sàmba xanaa xamu ni suñu borom ba mu bind jeex na ak sawara suñu suñu sawaaka taxuñu woon lii la ma fekkee la kon fu wér ngeen jàpp fu leer nañ ngeen jàpp sëriñ Saliou borom yërmande la borom xubbu xaw si borom jamono kenn du sëriñ Saliou kon jàpp ne foog nga mooy fi mbokk yi na ñëpp fekk fi jox xaadee sëriñ Saliou Mbacké ku yaakaar Serigne Saliou Mbacke fekk ko fi ko addee ko ñëpp jox sëñ sëñ Xaadim jërëjëf jërëjëf ma daale rek ndax waxtu wi laay bañ mu jëkkoo te. loolu yaa ko moom loolu bu la doyul dara warut laa doy Serigne Saliou Mbacké Cheikh Abdou na wax naan soo liggéey bu ne dugg àjjana Serigne Saliou moo ñu yeexal ndax nee du bàyyi du ba du bëgg a bàyyi kenn ginnaaw nee na Serigne Saliou noonu daraa ji buuboo buy dox daraa ji buubu nee na ba liggéey bu ne dugg àjjana nee na day def lu moroom rom buub la dugal àjjana barke Serigne Touba moo tax lii mu bàyyi ginnaaw def ko ci ay daara. def ko ci xel koom def ko Serigne Touba kenn def ko ci kaw suuf ñeent fukki junni ak gu topp mu defar leen defar maam defar ndey defar baay kenn du Serigne Saliou kon sëñ Bassirou Jonn yàlla suñu borom taxaw la dafa tawféex seen daayira bii day yàgg day law day yaatu ndax wama waman tawasala bu asin wasal waman tawasala bi ak si in fasal bu àndee ko àgg da ngay àgg ba àggale te ñëpp xam ne Serigne Saliou da àgg rek suñu borom fayal ñu ko dafa ñu ko taw feex waaye na nga seer ne maa ngi nuyu sa Umar Tine alaaj Alaaji Jonn di ñaan suñu mbor dafa leen taw feex di yam la fu kàddu yi waaye dangeen seer ne Serigne Saliou bég na Serigne Touba bég na sëñ Mbàkke Jonn monsieur le maire sama leer sama xarit maa ngi leen di siyaare di ñaan suñu borom taxaw la yow sa Serigne sëñ Fallakar moom boole yow ni ngay jàmbat ci xel koom maa ngi jéglu bu baax nag di dagaan nag lenn xel koom bu ñëwetee sëñ Matar Jonn sëñ Basiru Cheikh Amar oto yi mu daan joxe na mu ko daan joxee léegi dématul noonu te xel kom ci nekk damay am jafe-jafe ndax oto yi may jox du doy ndax dëkk yi ànd ak man liggéey bi téeméeri dëkk la ak ñaar fukk ndar ba ndakaaru su la joxee nag ñi fukk oto ak nangam nga bëgg ko séddale du du yomb tapamba li fi bàyyi ko ñetti oto ñaari oto mun leen yóbbu ma bëgg nag yéen góor yàlla yi yéen doomu aadama yi buñ si àggatee li waaye war suñu jëmmi sëriñ Saliou ku mën a jaayante oto mbaa tout tànk yi ngeen def teg teg ku nekk mille mbaa deux mille dem ndax li mu bëgg ñëpp moom lañ bëgg xel bu kenn xaar Cheikh Amar ci xel koom bu ndigal ñëwatee nañ def suñu Cheikh am suñu oto bopp suñ Tuubaa moom si tëdd ko séddale Cheikh Amar li mu bëgg la ñëpp bu ñëwee tey boo joxee suñ Fallou Lakram oto na nga jox sëñ Mbàkke jonn sëñ Matar on man ko na nga jox oto kenn joxe oto ñu dajale oto ñëpp dem xel kom ndax sëñ Saaw nee na ki ma jaaxal mooy ki mu sa dem xel kom kenn la ma jaax dem xel kom waaw ku waaw waaw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 ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من حبلنا ربنا ولا تعاملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت المولانا فانصرنا على القوم الكافرين إني آمنت بربكم فأسمه عيل أدخل الجنة حال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني منكم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أما بعد إخوة الإيمان والإراد السلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Pambal ñu ngi nuyu bu baax di leen siyaar bu baax a baax a baax kenn ku ne tur ak sant di nuyu bu baax i dëkk bi di nuyu kilifay dëkk bi ak mboolem ko fi teew di nuyu baax di siyaaru baax a baax nag sunu mag sunu kilifa sunu lépp muy sëriñ maxtar Fay ah, nekk ci waa kër sëriñ Saaliw ñu waat bu baax a baax a baax sunu bàyyi Laamin Kan ñu koy nuyu baax di ko siyaar di nuyu bu baax waa daayira nootoo jamaat fële ànd ak sëriñ Ismaan Seen ñoom ñoo ngi nuyu baax di leen siyaar ndax su ma juumul kere bi ñu dem ci bi ñu dem ci sëriñ Jiili moom sëriñ Saaliw yaakaar naa Ousmane miy toog keroog taxawu nañu côté bu nekk wax dëgg yàlla macha allah fa tabarakallahu ñu ko ñaanal baax suñu borom bindal ko aw yiw ci bàkk Sëriñ Tuubaa kontaan nañ leen baax sëñ Ousmane yàgg mboolem ñu ngi ànd yal na leen yàlla bindal yiw ñoo ngi nuyuwaat bu baax a baax di nuyu suñu jëwriñ ñu ñëpp sëriñ Basiru Jon waaye ñoo ngi santaat yàlla bu baax sëriñ Saalihu mi nga xamante ni moom moo ñu tarbiya ndax te xam naa ni du xam-xam du at yi bari moo ñu teg fi ñu toog te ñàkk ko mën a bañ a wax ah xale sëriñ Saaliw alhamdulilahi rabbil alamin war nañu ñun ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin ndaxte yaakaar naa ànd na ma ak lu yàggul dara dem ci sëriñ Jiili moom sëriñ Saaliw loolu yaakaar naa Ousmane mais mën na koo seede keroog bi ñu demee gis ngeen taxawaay ba ci war lépp sëriñ Jiili maa ngi koy dégg téléphone léegi bërki dem woona maam Thierno ngi nii nee na wax dëgg yàlla bis bii waral na fee teew moom moom Serigne Djily waaye nee na xat-xati jamono te nee na ki mu gënoon a taamu pour yónni ko dafa dem Afrique du Sud keneen ki ci des da ko yónni fee Thiès moo waral ñàkk gee teew waaye waral naa teew bu baax a baax waaye Serigne Djily ne na lim leen njëkk a sant mooy na sax ci ak jaamu yàlla tey góorgóorlu te booloo nekk benn waxtasimu jamii'an wa laa tafarraqu nee na na ngeen booloo jàppante nekk benn kenn ku ci nekk lépp loo xamante ni yéene nga sa bopp rek na nga ko yéene sa morom kon sëriñ Jili mu ngi leen di dénk loolu waaye nag nee na bi ma waxee ne naa ko Mbàkke mun ma xam ma ne ko wax dëgg yàlla man ne wax ci mbooloo duma ko mënuma ko maam Thierno ngi nii munuma su boobaa waxoo samay kàddu ngay wax kon nan jàpp ni wax waxi sëriñ sa sëriñ jii la ñuy wax waaye nag nee na sant nee na na leen bu baax a baax ci li ngeen xamante ni yéen a ngi koy liggéeyal way juróom muy sëriñ Saali nee na kóllëre gi nga xamante ni ñëw ngeen fa barki démb di ko dabu di ko mottali li ngeen doxal li ngeen seexal ak ak way juróom ba tey ngeen koy dabu ci moom nee na yàlla suñu borom fi téyal kóllëre googu ci bàkk Seex Xaadim asalaamaaleykum bokki jullit yi bokki taaliba yi ak sunu bokki quartier yi fi ne nu bokk bés bi di bésu sëñ saaliw lépp luñ ci sabablu yàlla nañ ko sama defal te ñu ñaan ci njabootu sëriñ saaliw mbàkke mu yàgg fi te ànd ak wér di jël kàddu gi rekk dañu ne digal moom jëfe rekk wax daa yombul kenn ku ne yaay sa bëstu lu bopp boo waxee rek ñu xam sa pois moo tax wax dafa yombul lu ci rafet ñi ma jox ndigal li la lu ci juunu rek ngeen xam ne man la waaye bés bi day di leen xamal ne sëñ am di xadifaal nee na bésu sëñ Saaliw day bésam la ndax kenn ku ne xam nga ne sëñ Saaliw ku bëggoon sëñ am di la ndax dem na ba mu ne képp ku la jëfu Cheikh Ibra raw ci kaw suuf nee na demal seeti Cheikh Moustapha ci njaareen ndax liggéey loo liggéey loo na ko xel comme daara ba mu demee ci daara ja mu ne ko bu ma xamoon nii nga koy defee kër sëñ Touba laa lay jox ñu dem a dem ba mu jox ko kër sëñ Touba liggéey ba noppul sax la mu ci yéene woon defu ko sax mu ne gisal rek waxkat yi rek waxkat yi rekk noppeeguma ci wax nañu ba sëñ bi ne baax na te damaa bëggoon ku dugg ci jumaa ji boo génnee dugg ci kër gi nga xam ne ñoo bokk borom mu nekk feek sëñ nekk feek sëñ saaliw ba sëñ saaliw wàcc na waaye teewul mu bàyyi ko feek ndigal muy kër googu mu liggéeyal sëñ ci njaareem sëñ saaliw wàcc na lu yàgg kër ga soog a yegg mu jébale ko kon sëñ am di nee na bésu sëñ saaliw bésam la bésu sëñ saaliw bésam la te tout tànk yi itam a ah, bu ñu ko rafastaalee sëñ saaliw wàcc nañu ndax mortal la mu sëñ daam saaliw su ñëwee fii dina jox xewalu ndox ba sos fi dayrey gone sëñ saaliw a ah, kon lépp sëñ saaliw la waaw kon lépp sëñ saaliw la kon sëñ am di nee na pàmbaal moom de pàmbaalam la xebalu leen dara ndax saawu wu wootee bi muy sañce daaru bayre bale saa wu sëñ Moussa Fall wootee jóore ñu sëñ am de waa pàmbaal ñuy mën ci waar wa ne yaakaar na ne daal pàmbaal moom ñépp ay taalibaam lañu ci ni ñu koy jëfale kon bu ñu amee bés tuddee ko sëñ Saaliw mu sëñ Amdi kon bés bi sëñ di nee na mu ngi koy bokk ak waa kër sëñ Saaliw di leen ànd ak moom ci bés bi ndax sëñ Saaliw sëñ Amdi bi ñu ko tuddee bés bi ba tey njabootam jógu fi ndax sëñ sëñ amul lenn lu baax loo kuy woo mu noppi ci mboolee si li mu liggéeyal sëñ Saaliw lépp ba tey loxoom teggewu ci lu ci yàqu moo koy defar kon a ah, ñu ñaanal ko sa borom def ko mag mu wér di ñaanal sëñ Cheikh Jëmba Fall itam mu yàgg fi te doon mag mu wér sëriñ mun taxa mbàkki mu yàgg fi lool te doon mag mu wér ndax loo gis bunt bi ngay duggee ñu ngi nuyu mboolem bokki taalibe yi ni fi fekk ak kilifa yi ni fi fekk yëpp ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo ba gën a tedd dafa fekk nag ni bu ngi la nee da ngay jël kàddu da nga bàyyi ko ci kilifa doo ko mën a gàntal waaye liñ fi wax doy na sëkk lu fi waaye mën a tee wax it wax it rek lay doon ndax liñ fi wax lépp doy na sëkk wa tabarakallah ñu ngi leen nuyu ci turu Serigne Dia mi nga xam mooy doomi Serigne Cheikh Dia di satub Serigne Momar Dia Aminata ki nga xam ne nekk naag Serigne Touba fukki at ak benn ba mu ñaanal ko wàcce ko jox ko ndigal ñu ngi leen di ci turam ak délégation bii nga xam ne moom la ñu àndal ñu ngi nii ci ginnaaw eh, di leen nuyu na ci nuyoo bu gën a tedd di leen xamalit ni leen di leen xamal it ni leen jëmm jii nga xam ne moom ngeen ni moom ngeen tuddee bés bi di Serigne Saalihu Mbakke xam nañu ni jëm a ngi noonu joo xam ne man wax ci moom suba ba keroog ngoon di jot tey doo mën a dab ak mbaaxam waaye ngeen xam ni ñi nga xam ne ñoom la Serigne ja yabal ñu ànd ak délégation bii ñëw di waa kër Serigne Momadou Dia Aminata di waa kër Serigne Cheikh Ahmadou Mbakke Gaynde Fatma di waa kër Serigne Mbacke soxna loo ku ne xam na seen diggante ak Serigne Saliou Mbacke ku ne xam na ne bi Serigne Saliou jëlee xel koom liggéey ko Serigne Cheikh Serigne Mbacke la jox mbàcc ma ak mbajjub dugub ma lu gerte bari bari bari kenn wuutu wu ca njabootu Serigne Mbacke eh, ak dugub ja noo koy bàcc jëri ko bojju dugub ja sol ko ci ay saaku andi ko Mbàkke bind ko ci këyit dëkk jox ko ko kon bu ñu nee tey jii dañoo jegale sëriñ bi bis bii muy sëriñ Saalihu Mbakke bu fi njabootu sëriñ Mbakke soxna loo teewee njabootu sëriñ Moustapha moom sëriñ Mbakke soxna loo teew fi ñoolu bég nañu ci xam nañu seen diggante ak moom maamama waaye liggéey bu mu doon bu nekk defe woon na ni bu ko joxee sëriñ Mbakke sëriñ sëriñ ca gën xel koom ni mu toll waxtu mu doon wune amul kenn ku ko wuutaat ci diiru dundub sëriñ Saalihu sëriñ Mbakke koy bàcc ba mu yegg mu dajale gerte ga ba mu yegg mu bàcc dugub ja ba mu yegg mu def ko ci saaku andi ko mbàkke jël kayit ba jox ko kon ñu ngi xam ne ñu ngi leen sant bu baax. ñu ngi nuyu kilifa yi nga xamante ni ñoom lañ fi fekk di leen wàccee seen wàccuwaay waaye it di wax nit ñi ni ay ndaw lañu rekk yoo xamante ni Morolan lañu jóge ci kanamu monsieur le maire Yves Lamine Cissé ci biir loolu ñuy wax nit ñi nii ki ñu àndal di suñu mag di suñu kilifa di Abdou Mbeng mi toog moom lañu waroon a jox micro yi sax moom mu wax waaye dafa fekk ni bu boo nekkee xale ñu ni la waxal sañoo bañ ñuy nuyu ki nga xamante ne moom mooy sous waaye it ñuy nuyu ki nga xamante ni moom mooy meeru dëkk bi di sëriñ Mbacke di wax ni bés bi bi mu amee délégation bu takku moo ñëwoon ci monsieur le doon si waxtaan ak moom ci lu jëm ci bis bi monsieur le nag li mu teg suñu loxo ni que ni bu ñu ñëwee nan nan ko wax mooy que ni li wolof njaay di naan ak kub yoon. buñ ko doon fayeeku moom bokk na ci ñi nga xamante ni ñooy fay pàmbaal àqub yoon ndax liggéeyam yépp xam ngeen ni ci arrondissement bi pàmbaal la kon bu xëyee war fee jaar am fi jàmm buñ ko wooyee ci bis bu mel nii dafa war a ñëw bokk na ci programme boo xamante ni sori na ci moom lool waaye it ku ñëpp bokk da ngay séddoo programme yi bari munuñu dem leen teewal ma Pambal moom mi ngi Dakar teewal fa Morolan waaye it fa arrondissement bi yëpp. wa yasir li amri waaxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bismillahi arrahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim bi barakati xaadim rasulillah sallallahu taala wa sallam bi jaayi cheikh ibrahima fall baabul muridin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh cheikh muntaxa ibnu cheikh modul bachir yàlla na fi yàgg lool te képp ku ne amin yàlla na fi yàgg te waaye sëriñ cheikh jëmb faal xalifa maam cheikh ibrahima faal baabul muridin yàlla na fi yàgg lool te mu mel ni jotaay bu mel noonu ci jiital ñooñu tudd nga ñëpp ñoo ngi lott lool ci kàddu gi ñu jox ndax ñi ñuy jiitu dafa mel ni li fi jaroon wax ñëpp wax nañ ko te dafay mel waxtu wi xat na te day mel ni baamtu la waaye ñun mun ñoo bañ a wax te nuyuwuñu suñu mbokki taalibe yi nekk fii ak kilifa yi nekk fii ak doomi soxna yi nekk fii di leen jox ñoom ñëpp seen wàccuwaay yal na leen yàlla yàggal te wéral leen xamal ne seen mbokkum taalibe bu jógee njaareem ak daaru xafuur te yàgg ñëw ci bés bi te loole jaare ci Mortalla jàlloo taalibe jawriñu sëriñ Ndaam Saaliw mu yoroon fi ndox mi ni ngeen ko waxe te bokk ci ñi sanc bés bi ndax taarix bu gàtt moom bokk na ci ñi sos daayira bi ngir liggéeyal fi sëriñ Touba radiyallahu anhu te loolu mooy liggéeyal Seex Saaliw Mbàkke jàmbaat ja yàlla na yàlla doon leeram te taas ñu ci barkem sëriñ Saaliw nag ku ko tudd dinga tudd Serigne Ndaam Saliou Serigne Ndaam moom Serigne Saliou waaye moom Serigne Saliou Mbacke ku ko tudd di nga tudd sëñ Maxtaar Njaga Fay mi nga xam ne dama oustaz Maxtaar Njaga Fay mi nga xam ne saa su ne dañuy bokk daje fii te lislaam rek tax ak bokk ak taalibe tax waaye oustaz Saliou Fay tamit ci la bokk mu mel ni dañoo ñëpp mën naa ne damaa ànd ak ñoom ci délégation ndax ñoo bokk jokk jógi bokk na ci sama jarbaat bi nga xam ne maam Adam Fall ibnu Serigne Saliou Fall rakk Cheikh Ibra mooy maamam mu ngi toog ak soxna Fat Fall Male nga xam ne mooy soxna Mor jàlloo Diallo ak doomam ja sëñ Bada Fall mi nga xam ne Bada jàlloo ñu tudde ko sama rakk ji ma bokkal ndey ak baay ñoo ñëpp mën nañ ni ci seen tur laay wax tey waaye tamit seen tur ci turu Serigne Dame Saliou mi nga xam ne barki démb la wàcc liggéey may sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko sànq maa ngi dagaan ci suñu jëwriñ ji nga xam ne bi ma fi nekk sëriñ Touba yàlla na yàgg ci tund wi sëñ Mbàkke di dagaan ci ñaan yi ñu dool ñu boole ci Mortale Diallo waaye noonu laay dagaane ñu boole ci sëñ Dame Saliou mi nga xam ne nii juróom fukki fan wala juróom benn fukki fan matagul ñaari weer bi mu génnee àdduna ak léegi te sunu mag ji sëriñ Falilou Fall wutu ko te ma tàgg ko léegi ci ngoon jëm si fii ndax bésu sëñ Maxtaar Mbàkke xalifa daaru Xuddoos bu ñuy amal fële ci njaareem ak soxna Astou Fall bintu Cheikh Ibrahima Fall bu ñuy amal fële ci njaareem te démb ñu jógee ci màggalu sëñ Masamba jàmbaar ja moom sëriñ Tuubaa na yàlla dolli seen i leer seen barke mu mel ni duma guddal lool fii suma fi ñëwee ci anam boobu laa fi ñëw mbir mi nañ ko dugal foofu ab Baay Faal nag bu koor jubsee xam nga ne amatul toogaay ndax toogi ndogu ndogu nag jàpp naa ne la ko yor mooy addiya mooy jëf Cheikh Ibra Fall jëf jël la wax yàlla nañu ko yàlla fayal mu mel ni xale yii nag dañu jàmbaar te it lii rek a fi ne sëñ bi de te tasawudu saxaar loolu lay jàngale ñu mus seytaane saytaane tey du tey jëm ci barab yi ñuy sàkkoo xam-xam ndax loolu rek moo fi ne ku gis sëñ Mbàkke mii de nga xam ne bi may ñëwee dugg fii moom laa njëkk a dajal muy meerum Pambal bi ma ne sëñ Mbàkke ma ne ko yow yaay sama sëriñ ñu ne te it ci doxinam ak ak waxinam rafetlu naa ko ndax biñ ñëwee malgré son de maire fee la toog ci suuf te xam-xam bu ñuy jàngal dañuy wax ne nañu dëppook jamono tuuti loo am am xam-xam ak ku la mën a jur ak la mënoon da ngay jéem a dëppook jamono tuuti dëppook jamono nag weesuwul jéem a xam xam-xam yi nga xam ne mooy lal àdduna nga ciy góorgóorlu bu baax ndax tey fi mu toll nii tey jii rek tey kenn mënta dégg ci rajo yeeg tele yi ndax lu ñuy jàllale ca assemblée nationale te loolee doonu ludut mbiri àdduna yoo xam ne moo ne ci lañ tënku fi nii nii ci la ñuy dox mu mel ni lool war na am taxaw seetlu buñ ci war di def di xool ak di xalaat ak di xool fan la ñuy joyal xale yi ak lan lañ war a xam ak lañ war xam ak lan moo dëpp ak suñu diine ndax koo mën a doon ak loo mën a doon te loolee dimbaliwul sa diine loolu yaraa nga ne loolu des na ko layoo bés penc ndax indiwuñ fi ngir lu ñu neex dañu fi indi ngir ñu jaamu yàlla ak liggéey jaamu yàlla ak liggéey nag mënoo koo def te ci environnement fi nga koy defee dëppawut ak diine dëppawut ak lislaam yàlla ñu ci yàlla musal kon xale yi nga xam ne ay xale yi sëriñ Saliou lañ leen tudde ñu leen di jàngal diine di leen jàngal xam-xam di leen jàngal ñu ngi ci sant yàlla bu baax loolu nag ambassadeur bi kenn rek laa ciy mën tudd muy Basiru Basiru mi nga xam ne ci xale yooyu la woon tey ba tey muy jëw di yéen ñëpp ngeen rafetlu doxinam ak taxawaayam yàlla na yàgg te loolu yàlla na yaatu ci kër gi ci dëkk bi leneen li ci topp mooy di nuyu ah, autorités yi fi teew yëpp moo ko tege ci loxo monsieur le maire defe naa ñëpp dinañ ci jot mel na ni nag yëf yi dafa xat te tënku ah ñu bëgg a wax bëri bëggoon naa cee wax lu gudd lu yaatu ngir ñu ñun ñëpp ñu am luñ ci jànge waaye nag ngir deme mbir mi demee ne nii dama naan xayrun kàlla maa xalla wa dalla wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa wa taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalib yi mbokki dëkkandoo yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziare kenn ku ci nekk ci turam te di jox kenn ku nekk wàccuwaayam. di jël nuyo bi ak siyaar bi di ko teg ci loxol suñu mbokk yu tedd yu baax yi di njabootu sëriñ Touba gi fi teew ñu jot li ñu ko ñépp di jotal nuyo ak siyaar tur tànk yi nga xamante ni ñoo woote bis bi ngir sant Serigne Saliou Mbacké di jël nuyoo boobu di ko teg ci Cheikh Mouhamadul Basir mu jot li ko ci mbooloo mi yépp di siyaare mboolem ku nekk ci dëkk bi rek ak di dégg sunu kàddu ndax waxtu wi xat na te toogaay bi yàgg na te léegi maa ngi wax sëriñ sëriñ Basiru ni ko man dama bokk ci mbir mi kon daanaka kàddu yi du mën a gudd nuyo bi foofu lañu koy yemale euh, li sunu mbokk mu baax mi wax léegi rek moom la ñuy wax muy li ñu waroon a wax lépp gaa yu baax yi jiitu wax nañ ko kon dafa am tomb boo xamante ni ci la ñuy ci la ñuy wax rekk joxe kàddu gi ñaan ndax kenn ku ci nekk amut lu dul la ngay yëngu te ñun nañu xam ne réew mi li ci ëpp wax nañ ni euh, ay jullit lañ ñoo fi ëpp kon war nañ di bàyyi xel bu baax am na lu ñuy foyee te mu naqarinu tey naqari nu ëllëg te ñoo ngi koy naqarlu ci sunu biir xol mooy ay ndaw yu jóg di foyee alxuraanul karim ak sëriñ daara yi lu ko gën a ñaaw amul ci àdduna rawatina réew yi ñu nekk di senegal ñu gis ni am nañ benn télévision buy wane benn théâtre di wax ni sëriñ daara yi dañuy dañuy jaayloo seen dongo yi yàmbaa loolu lu ko gën a ñaaw yaakaar naa amut lu ko gën a bon it amut lu ko gën a mën a gàkkalub der it amut ci lislaam di jëf ju ñaaw premier épisode bi jàll na TFM wane na ko sëriñ daara yi nag taxaw nañ ak mboolem kilifa diine yi naqarlu loolu ba fa naqarlu yem ndax lislaam alxuraan mooy xolam mooy waxi suñ borom ji nga xamante ni mooy kàddug suñ borom gi nekk ci kaw suuf di alxuraanul karim sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu sunu yaakaar tey ak ëllëg lépp lu mu am ci alxuraanul karim rek la ko amee moom rek moo daan jël lal yu seer di ci teg alxuraan di jël parfum yu neex di ko sotti alxuraan boole kook di ko tagg di toroxlu ci kanamam sëriñ Tuubaa lépp loo ko mos a jox lu dul alxuraanul karim rek la daan téye ci ñaari loxoom kon kooku xam na ni ñun lépp lu ñu am alxuraanul karim mooy sunu lépp gis nañ ni nag réew mi am na lu ñuy foyee te lépp lu ngeen gis ci àdduna ci benn bis rek la xew kon loole dafa mat di bàyyi xel bu baax bu buñ bëggee lu ñu théâtre mën nañ koo bu ñu bëggee leneen lu ñu def mën nañ koo def jakarta yi taxaw ci buntu université yi yor sàngara di ko jaaye cent franc xale yu ma sorul loolu lu ko gën a ñaaw nañ wax ci loolu nañ wax ci jaayante doole gi am ci réew mi nañ wax ci tuurante deret gi fi nekk ak ndaw yu tóoti di xale jigéen di jaay seen bopp nañ théâtre loolu te bàyyi sëriñ daara yeeg alxuraan wasalaamu aleykum wa rahmatullah fu waaye toll na nangu ñaan amin fu waaye toll na wax amin